salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi waxoon naa leen justice amul Sénégal Kaliphone Sall man leeroon na ma ba leer na bu kattee jigéen sax violé ko sax ñu jàpp ko dinañ ko bàyyi. ma kay jaar ci suus Marième Faye sàll ñu bàyyi ko mu génn justice amul Sénégal justice amul Sénégal kii waroon na noo katt ndeyam ci kaso bi ndax dafa violé da doon tentative de violation mu may. xam nga ne kooku waruñu koo bàyyi muy taxawaalu sax naan day laay fag ay yu gën xamul gars yi duluñu de man fenuma télé yi fenuñu journaliste yi fenuñu Ousmane Tounkara fenul da doon tenter violation problème bi kay mooy Macky Sall moo ko ciy génne mari Faye Sall loolu mooy wax bi kenn fenu si ñëpp dëgg lañ wax na kat ndeyam fële Californie